doole laa ilaha

baayam dafa paapal joori jooram yaay laay yaay jooram jooram yaay waaw foofu rek balay dégg fukki balak ñaxaala naan koy alaaji kat mbay dafa baayam dafa baakal saxaay dying, the guy is after dying, the guy is after dying. We are the best. The man from our Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maa ngi leen di xool ndax nii nañu wala nii nañu moo yëkkati loxo yi noonu arbitre baa ngi koy xool niin na wala niinul ambulance xool nañ ko arbitre baa wax ak Armé am na lum sànni ci ginnaaw ambulance am na sunguf bu mu sotti am na sunguf bu mu si diggante bi moom armée arbitre baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak lim bañ nee na ko coup de sifflet boole moo di tàqale mu ne ko waaw ah journée Diéry Ngoné dimanche le 22 janvier 2022 arbitre sifflé na diggante ambulance ak armée ambulance bi muy mujjee fii wu leader moo ko daan waaye moom armée ba muy mujjee arène nationale caatu booy bambara daan armée day jat wala lu muy def ambulance dox na armée arrière ñu ngi lewtoo ñaari xale yaa ngi lewtoo armée nii ne 2 la ambulance ne dama koy agressé 1-1 lay yaa ngi na ci tànk yi ñu ngi lewtoo ku dalagul conko amagul ee eh, mbay ñaari xale yi ñu ngi lewtoo ñaari xale yaa ngi lewtoo armé génn na saaku yi day jot wala lu def ambulance topp na ko mu génn saaku yi armé am na benn avertissement moom armé at bi suuf la waat na ambulance tibb na suuf tànk ba raxasu ñu ngi lewtoo ambulance armée eh armée soxal na ku waaye dalul armée soxal na ku waaye dalul ñu ngi lewtoo eh ambulance fay na ambulance dugal na benn droite

ku bu tax ñuy wax amagul ñu ngi lewtoo lewtoo bu diib ñoom ñaar supporters yi supporters yi nee nañ tekki jommi nañ eh ambulance dugal na ku bu dal ambulance dugal na ku bu dal waaye am na ñu ne tekki di lewatoo ambulance ci bu nu suuf raxasu ñaari xale yaa ngi looto at bi mépp na demul at bi mépp na waaye demul combat bi combat lay doon du yombu ñoom ñaar ay xale lañ ginnaaw bañ bëree yàggul ku ci nekk benn combat nga ci diggante bi at mi mépp na mais demul at mi gëdd na ko doon kenn ku ci nekk benn comme ambulance fay na waaye seen dalul kenn ku nekk benn combat nga am benn défaite ñu boole waat leen moo tax combat bi di yomb dër doon waaye Armé nee na 2-0 daa ne ko bu fóotee du weer du bulo du paase loolu kanam lay leer eh Armé gëdd mu reculer ñu ngi lewtoo ñaari xale ñaari xale yaa ngi lewtoo du yomb ñoom ñaar ku ci nekk defet nga jóge moo tax bi fii lay xewee ñu ngi leen koy jox ñu ngi lewatoo ñoom ñaar ambulance eh! ambulance da koy nax dem ci suuf xeex ci kaw moom ambulance Armé ambulance Armé gëddaat na ko ambulance gëddaat na ko Armé reculé Armé gëddaat na ambulance gëddaat na ko Armé reculé Armé mi ngi ak deux avertissement moom Armé Armé jël na deux avertissement at waat na at bi suuf waat na. diggante armée ambulance armée eh armée dugal na ko waaye dalul armée gëddaat na ko armée ambulance kuy muy dugal dalul daw na jël na ko ambulance armée bañ na ambulance daw na da waaye armée ambulance am na loxo ci ngemb armée am na loxo ci ngemb armée ambulance armée ambulance ñaar xale jàppante nañ ambulance moo woon ginnaaw ngeen boo li am lu li waaye armée moo takk moo sobu weex bi ci kaw bopp bi armée ku nekk am nga loxo ci ngemb armée ku nekk jàpp nga ambulance woon ginnaaw moo ngeen moo ngeen moom ambulance kenn ku nekk da ngaa jàpp def lamb ji ku juum daanu la moo tax ñoom ñaar duñ sooxa sooxa seen combat kenn ku nekk da ngay sa morom armée ambulance armée am na ñaari loxo ci ngem ba pare ndengeeñ ambulance a ngi koy sol xel pour mu sigi armée sigi na armée ambulance armée ambulance armée am na loxo ci ngemb ambulance ngay liggéey lu xew armée ambulance ambulance ñu woon ginnaaw armée ñu woon kanam supporters yi boo leen tompatee duñ ko yëg eh, ñaari kenn ku nekk da ngaa jàpp di liggéey Armé ambulance Armé am na ñaari loxo ci ngemb mbay kenn ku nekk da ngaa jàpp di joow Armé lu mu bëgg Armé da koo bëgg a taxabal la eh armée ambulance ambulance daan na armée ambulance daan na armée combat bi ñàkk doole. ñàkk doole dëgg la. Adja Fall loo wax. ambulance daan na armée. daanaan la waxoon na ko ñoom ñaar ñëpp ay ndaw lañ. ndeysaan armée ñoo defoo waat. armée làmb noonu la. làmb noonu la. ndeysaan. ndeysaan armée làmb noonu la. bëre woon nañu